nuyooti nañ leen mbokk internetu Thiès fo di leen euh, jaajëfal saa su nekk euh, ci seen ànd ak ñun fii ci Thiès Info euh, di leen wax nag dalalaat leen jàmm seen émission bi la di édition spéciale fas yéene cee dalal ki nga xamante ni moom moo di Dame Sall Dame Sall nag daañu fas yéene moom waxtaan bu ama am solo ci li nga xamante ne nii rek moom moo di coow li xew yaakaar naa ñëpp dégg nañ ko waaye laataa rek ñoo xuus ci biir waxtaan bi du ma def lu dul bàyyi ko moom mi nga xamante ne moom mooy ndeyu mbili gi daam mu ndiyoonteeg mbokku Thiès waaye yi nga xamante ni ni ñoom ñoo ñuy seetaan. Euh, Rokhaya maa ngi lay euh, nuyu di la remercier ci dalal bi nga ma dalal di remercier la population thiessoise di remercier sénégalais yi mais di remercier également mes partenaires de la sous-région ouest africaine parce que kenn ku nekk xam na ni ils sont très impliqués ci projet yi nga xam ne ni maa ngi koy def fii mais mu am yeneen xeetu rapport yoo xam ne ni maa ngi koy am ak ñoom ci seen dëkk yi parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le mois de janvier la dugg en vigueur la zone de libre échange africaine muy benn plateforme boo xamante ne ni daf ñuy invité à réfléchir ensemble à partager mais à nouer des relation de partenariat pour que suupa ñu mën a jëlee économie Afrique ci niveau bi mu nekk yóbbu ko ci beneen niveau ba lépp loo xam ne ni mooy ay difficultés yi nga xam ne ni dañ ko doon dund alors yàlla sans borom jëlee ñu ci vraiment je suis très satisfait d'être là aujourd'hui alors et je suis prêt également à répondre à toutes vos questions parce que tool yi moom defe naa ni waa Thiès xam nañ ko waa Sénégal xam nañ ko mais adduna bi aussi yëg nañ ko très bien koy jaajëfal bu baax a baax comme ni nga ko waxee daam coow li eh, ji eh, moom la sax picc yi di sabe ci ni ñu koy mën a waxee eh, foire bi dina am du am autorisation bi révoqué nañ ko laata ñu ñëw ci loolu lépp nga dellu si parce que yaa ngi wax léegi léegi sa relation ak ñi nga xamante ne moom mooy sa partenaire yooyu yaa ngi tudd Zuleykaaf sànq si say biir wax lan moo tax daam Thiessois toog ba si yàgg mu ni dafay jël rek initier li nga xamante ne moom mooy foire économique régionale boobu lan moo la ci dugaloon au début. ça de très parce que xam nga su fekkente ne ni da nga nekk ci dëkk yàlla may la nga def ci ay gëstu gis ni am na une catégorie de personne boo xam ne ni suñu xëyee pour ñu ndekki c'est tout un problème muy ay mag di ay ndaw je pense que il faut penser à ces am ñoo xamante ne ni su añ jotee la même chose très difficile ñooñu aussi war na lañ bàyyi xel mais am ñoo xamante ne nii bu reer jotee non seulement xalaatuñ ko mais bu ñu yeewoo la lendemain sax wóorul ndax dinañ am lu ñu ndekkee mais jàpp naa ne loolu aussi dañ leen war a bàyyi xel mais surtout maintenant seen catégorie de personnes bi nga xamante ne ni dañuy feebar te seen koŋ mayu leen ñu mën a dem hôpital faj ji ñu koy doxee toujours nga gis koo xam ne day dox ba daanu fekk dafa am loo xam ne ne daf ko doon doxalee donc il est bon de penser à ces gens-là je pense que képp koo xamante ne nit nga koo xam ne ne yaa ngi xalaat te sa société tax laa jóg war nga dugal sa loxo dans l'effort de développement pour que dans le moyen terme ñu mën a jëlee suñu dëkk ci situation bi mu nekk yóbbu ko ci beneen situation boo xam ne ni ñooñu nga xam ne ni dañ nekkoon ci ay difficultés mu mën leen a wàcc parce que c'est ça qui est normal dafa am benn bis may dem Dakar li ma inspiré pour euh, la foire je vu que ni garage bi dafa fees dell at ay Thiessois yoo xam ne ni dañ doon génn alors comme moi je suis ma am ñoo xam ne ni dama leen jege am ay question yoo xam ne dama leen ko posé mais la conclusion mooy que. ñii dañuy uti ji liggéey ñii dafa am ay kayit yu ñuy uti ñii dañuy voilà ma ne mais pourquoi lépp loo soxla rek da nga war a génn mais il faut que les Thiessois travaillent pour que lépp lu ñu soxla bu fekkente ne munuñu ko ñàkk déggaani tamit les quatre-vingt-dix pour cent au moins ñu mën ko am chez il fallait donc euh, réfléchir sur ça bi ma ñëwee j'ai discuté avec des gens ma ni leen d'abord développement munoo ko wax te waxuloo économie mais économie mënuloo ko wax te waxuloo commerce waxuloo échange waxuloo la création de environnement des affaires boo xam ne dina permettre à tout un chacun soo amee projet nga mun ko réaliser il fallait donc mettre en place une plateforme alors plateforme boobu moo doon la foire lan moo tax plateforme boobu parce que lu ma ci jublu woon mooy at bu jot ñu permettre aux opérateurs économiques du Sénégal de sa rencontrer quelque part de discuter et d'échanger et de nouer des relations de partenariat mais faire parce que c'est important alors au début c'était uniquement au niveau de la région ñu dem ba ci biir ñu gis ni les autres régions du Sénégal ñi ngi ñëw di participer ñu dem ba ci biir ñu gis ni la sous-région ouest africaine ñi ngi ñëw di participer à cette foire la ma ni il faut aussi penser à l'avenir l'avenir mooy lan mooy que ni comme gis nañ ne Dakar est devenu une forte concentration mooy que amatul investissement bu bees buy ñëw ñu def ko Dakar investissement bu bees bu ñëw c'est soit Diamniadio c'est soit Thiès donc l'avenir du Sénégal c'est bien Thiès alors est-ce que dañu war a xaar ba loolu agsi ñu doog a jóg wala dañu war a waajal suñu bopp balaa loolu di agsi la réponse été waajal ko parce que depuis l'indépendance jusqu'à présent ñun lépp lu ñu soxla dañuy dem di ko uti ji on a toujours été des employés mais bu ñu demee ba nga xamante ne lépp dafay dellu si ci ñun defe suñu xalaat mooy nekk ay employeurs au lieu d'être des employés suñ ko toggul léegi préparé ko ñi nga xam ne ni ñoo ñu doon employé démb ñooy dellu si toog ci place yi ñu waroon toog di ñu di ñu employé. donc il fallait penser à ce que dans l'avenir ñu mën a am un centre international de d'échange c'est important pour que chaque année à ñu mën a dajale les opérateurs économiques du monde ci benn rencontre boo xamante ne ni dina déboucher bien entendu à des relations de partenariat mais aussi à des investissements parce que si tu as un projet te amuloo alal boo ko defee ba projet bi finalement dootul mujj am kooku Sénégal rek nga koy gisee boo demee dans les autres pays parce que ñun dañuy tukki lii xam nañ li xew ci Tu as projet, tu n'as pas d'argent, l'autre a son argent, nous associer les deux pour mettre en place quelque chose. Donc, ce fait qu'il y a une plateforme qui nous permettre les jeunes Thiessois qui sont porteurs de projets, ce fait qu'il y a une possibilité de financement ici au Sénégal, mais nous avons des partenaires qui nous appellent Donc, c'est l'objectif. beneen objectif bi mooy que ni une foire internationale tout le monde sait que am na ñu koy wax tey mais ñun koy xalaat yàgg na parce que il fallait penser à ça parce que bu ñu demee ba développement Thiès nekk la capitale économique du Sénégal parce que fa lañ jëm war nañu am au moins benn foire international boo xam ne daf ñuy permettre bien entendu de retrouver retrouver entre les opérateurs économiques aussi bien de l'Afrique que dans le reste du du du monde parce que loolu moo ñuy permettre ñu mën a wane li ñu yore ñun loolu mooy permettre aux autres ñu mën ñu wan li ñu yor pour que échange mën a développer parce que la meilleure façon de corriger la balance commerciale c'est de faire en sorte que ni ñuy recevoir ñun ñu am loo xam ne dañ koy joxe mais bu fekkee ne ni dañuy continuer di recevoir te du ñu am lu joxe je pense que déséquilibre day am ci balance commerciale bi te loolu suy continuer di am dafay créer une situation de précarité boo xam ne ne moom mooy d'or. Donc l'objectif était noble. C'était juste de faire en sorte que et d'ailleurs je, je dois préciser quelque chose parce que contrairement à ce que les gens pensent dañu foog ne dans salle il fait des événements pour se faire de l'argent je vais amener la réponse que l'autre avait répondu aux gens bi ñu koy wax ni ko sàcc na suñu ay oto sàcc na suñu ay tableau mu leen fait attention yàlla su la mayee xam-xamu ut xaalis ak lijjanti xaalis loo soxla alalu jàmbur mais heureusement que jox na la possibilité de pouvoir créer de l'argent en fonction bien entendu des projets yi nga xamante ne maa ngi koy teg donc je ne pas une foire pour me nourrir parce que tout le monde sait li may investir ci foire bi foire bi delloowuma ko man mais xëy na peut-être dans l'avenir dina ma ko delloo parce que bu fekkente ne ni da am un projet il faut se sacrifier il y a un monsieur qui que ni sénégalais boo ko joxee tàngal du ko màcc da koy sàqami il veut dire tout simplement que sénégalais dafa yàkkamti heureusement que man soo ma joxee tàngal dama koy màcc pour di xam li tàngal bi di saf donc je ne suis pas pressé j'ai mis un projet boo xam ne ni ay alalu partenaire dinañ ci dugg sama alal dina ci dugg parce que xam naa ne bu ñu demee ba ci kanam li ma bëgg mu doon ko su ko doonee lépp loo xam ne ni defoon naa ko ci projet boobu dina ma ko delloo subaat c'est juste ça moom mu poussé woon donc à mettre en place donc euh, cette foire économique et commerciale la région de Thiès. justement yaa ngi wax léegi waxu xaalis yaa ngi wax aussi ay partenaires euh, yaa ngi wax ni aussi Thiès dafa war a nekk capitale économique du Sénégal foofu lañ jëmee mu mel ni dynamique boobu yow nga nekk ñëpp ànduñu ceeg yow euh, coow li bëri na commerçant yi ñu ngi jug di wax nee nañ foire bi daf leen di empêcher ñu def seen liggéey par rapport ak tabaski bi ak yu ni mel est nekkul ni xëy na amalgame dafa am mooy xaalis mi nga xamante ne yaa ngi koy wax léegi est-ce que ñoom nekkul ni que yaa ngi wax ay partenaires et cetera que ni te ñoo après dañ leen di léser ci biir foire boobu. Hmm. mais déjà boo boo jiitalee xaalis jiitaloo dëkk bi ça veut dire que ni bi intéressé wala xaalis moo <laughs> ko wax ñoom looloo leen intéressé mais il faut faire la part des choses parce que vous avez parlé de commerçants les personnes qui sont contre ñu réfléchir sur la notion d'un commerçant parce que Sénégal moo am fu mu toll aujourd'hui Un commerçant, c'est celui qui produit, qui transforme, qui existe dans son marché et qui existe dans les autres marchés. Parce qu'en matière d'économie, il y a ce qu'on appelle la création de richesse, mais il y a ce qu'on appelle aussi la valeur ajoutée. La richesse, on la crée chez toi, mais la valeur ajoutée, donc, on à partir des autres marchés. Donc, c'est ça l'économie. Donc, ce fait que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que donc ça c'est c'est important aw ma ci xaalis au contraire ba fii may waxante yow sama xaalis moom moo ci dugg donc li ma intéressé woon c'est la population thiessoise ñu gis seen bopp ci li may def li ma intéressé woon mooy fexe ba nga xam ne ni les jeunes qui sont porteurs de projet am ñoo xam ne dina leen jàppale ba mën a réaliser seen projet yooyu la preuve mooy que je viens de signer avec le FONGIP une convention parce que ñoom ñoom le FONGIP est le sponsor leader de cet événement et que le FONGIP avait décidé de venir signer ici avec nous une convention de financement pour que les jeunes qui sont porteurs de projets ñu mën leen accompagner je ne peux pas comprendre aujourd'hui un projet boo xam ne ni état daf ci impliqué avec l'importance que ce projet là a ay nit taxaw ni ñoom état la ñuy liggéeyal ci opposé wu moi je me pose déjà une question et ça me permet aussi de poser une question sur les personnes yi nga xam ne ni ñoom ñoo ñuy diriger ba pare di ñu gëmloo ni dëkk bi moo leen tax a euh, tax a jóg kuy liggéey nag am na loo ciy séntu parce que ku lekkul naanoo doo taxaw te ku taxawul mënoo liggéey mais pour le moment foire bi joxaguma loo xam ne ni war na war na mën a tax kenn di wax. alors euh, foire bi ñu prévoir woon ko ci li nga xamante ne moom mooy période tabaski bi actuellement autorisation bi révoqué nañ ko mu waroon am promenade des Thiessois lan mooy le pourquoi euh, maire révoqué autorisation boobu. maire boppam la révoqué révoqué wul autorisation bi. il faut être clair. comment comment boppam. et il est à l'origine de tout ce qui se passe. et je vais vous dire pourquoi. parce un jour il invité chez lui avec maa ngi àndoon nag koo xamante ni kilifa la ci Thiès te xam naa ni dina suivre émission bi dina xam li may wax dañu dem seeti ko këram nous avons discuté ensemble sur l'idée d'organiser à Thiès une foire internationale en tout cas il me l'a proposé mais moom bi ma koy proposé man ci dynamique boobu laa nekk mais bu fekkee ci dynamique boobu laa nekk moom mu nekk le maire de la ville waxtaan ak man ci loolu man su fekkee dëkk bi moo ma mais dama ci ànd ak moom j'ai donné mon accord tegal ko aussi sama ay condition mu accepté sama ay conditions ce jour-là je crois que mi ngi doon préparé sax di dem à Bamako moom bu déggee lii dina ko fàttaliku mais bi ñu waxtaanee loolu après je l'ai perdu de vue ba au mois de mars il a envoyé un de ses collaborateur mu ñëw seet si ma au bureau ni ma je suis de la part du maire parce que la foire internationale la ñu la la ñu bëgg réaliser. ma ne ko kañ ngeen ko bëgg a réaliser mu ne ma en avril ma ne ko mais vous avez oublié que nous sommes au mois de mars mu ma waaw ma ko comment voulez-vous organiser une foire internationale ngeen préparer ko ci un mois man depuis depuis euh, depuis euh, dix ans maa ngi organiser la foire internationale de Thiès et toujours réussi donc mënatuma dellu ginnaaw dellu ginnaaw mooy dugg ci loo xam ne dafay am échec te su ma leen ne cette foire internationale mën nañ ko organiser au mois de dire que ni ñi ngi koy organiser mais on va vers l'échec je suis prêt à laisser tomber ma foire bi nga xam ne ni maa ngi ko def en avril mais su fekkente ne ni d'accord ngeen yóbbu ko en octobre moi je prêt pour participer sur l'organisation de la foire internationale qu'est-ce qu'il m'a répondu mun ma non parce que bon octobre dafay sori on va commencer avec l'existant mais l'existant c'est mooy man li ma doon def ma ne ko nag y' a pas de problème de toute façon c'est ma foire le mois d'avril et j'ai commencé à travailler ci foire boobu depuis longtemps d'ailleurs les des stands sont déjà vendus et j'ai réussi également à mobiliser tous les partenaires yi nga xam ne ne war nañ ma accompagner ci foire boobu su fekkente ne vous voulez passer par ma foire pour lancer la foire internationale y' a pas de problème moi suis tout à fait d'accord mu ni ma tu convention de partenariat va se revoir le lundi ma ni ko d'accord le lundi je Je suis reparti dans son bureau. Le gars qui l'avait envoyé, je ne l'ai pas vu. Par hasard, on s'est rencontrés. tu m'as donné un rendez-vous. Moi, j'ai un agenda. J'ai tout laissé dans ce bureau. À préoccupé par Manoko. Mais attention, il faut aussi apprendre à respecter les gens. Parce que vous avez votre boulot, mais moi aussi, je organisé C'est autre chose. Si tout le monde me donne un rendez-vous, je vais aller le faire. ma vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Je trois jours après quelqu'un est venu me voir mu ne ma mais entendu quelque chose dafa mel ni que la mairie a signé et est en train de signer avec d'autres promoteurs pour organiser la foire internationale ma ne ah bon mu ne ma man ko tu me l'apprends mais y a pas de problème dinaa ci am ay information je l'ai la personne là bëgguma tudd turam mais qu'est-ce qu'elle m'a répondu bi ma ko wooyee non oui parce que dégg na ni yaa ngi commencé di jaay la foir et puis il une chose su maire su su su mairie soxlawee mairie mooy organiser keneen du organiser ma ne ko mais monsieur réponse boobu nga ma jox c'est pas courtois man maa la woo je vous ai posé une question euh, nee nga ma maa ngi jaay la foire mais foire bi may jaay sama foire la depuis dix ans maa ngi koy jaay am naa ci droit wala aw ma ci droit beneen bi ci topp. su su soxlawee kenn du organiser moom mooy organiser c'est parce que tu connais pas ton rôle et malheureusement voilà les personnes aujourd'hui qui sont dans l'institution communale qui ne comprennent pas ce que c'est la, mairie parce que soo xamee ce que c'est la mairie nga xam ne la mairie a le droit d'organiser même su fekkee sa vocation c'est pas ça mais il y a des privés yoo xam ne ni tamit ils ont le droit justement mu waa de toute bi waroon jox pour ma organiser cette année là bañ ma ko jox le maire il ne prend plus de téléphone suñ koy demander à le rencontrer il refuse pour vous dire que ni li xew depuis trois ans ñoom ñu koy toog alors ba finalement une autorité l'a appelé pour lui dire que ni mais attention il faut recevoir ces gens-là malgré lui il nous a reçus bi mu ñëwee nous on s'est expliqué il nous a donné l'autorisation à 15 jours de l'ouverture de la foire fekk tous les exposants sont allés voir d'autres foires am na ñoo xam ne ni ils sont partis à Mbour d'autres sont à Saint-Louis et ils pour vous dire pour vous raconter ni li xew nii lan un la photographie de ce qui se passe alors boo duggee ci biir foire bi soo xoolee da naan c'est une foire qui est réussie parce que effectivement à partir de 18 plein mais en réalité les stands ne sont pas occupés intégralement bi foire bi jeexee j'ai pris mais 4 millions parce que j'avais un déficit de 4 millions comme man bëgguma ko ma topp bor j'ai pris mon argent pour payer ces gens-là foofu la affaire bi démarré alors en 2019 ñu dellu la même situation se répète encore. Il a fallu le préfet a appelé une réunion. Il y le préfet, il y avait les sous-préfets, il l'association des chefs de quartier, il y avait les commerçants, mais il également les, le commissaire centrale Alors, ce qui m'a surpris dans son intervention moom mu ni non parce que foire yi fii nekk du foir c'est des marché mais ñàkk xam-xam weesuwul nga taxaw naan foir marché la am ban foire moo nekk dans le monde bu nekkul marché boo xamul événement doo wax ci événement parce que il y a deux types de foires la foire commerciale c'est un marché nous on organise une foire commerciale la deuxième type de foire bi mooy la une foire professionnelle boo xam ne on fait venir des entreprises et des institutions yoo xam ne ni ils ne font que montrer des des échantillons pour pouvoir nouer des relations de partenariat avec des distributeurs mais nous nous avons opté pour une foire commerciale kon boo taxawee naan foire yooyu marché la moom la ñu nar a indil fii c'est ne pas connaître un maire boo xamante ne ni dafay xëccoo avec ses administrés ay événements ça n'existe nulle part dans le monde li xew mooy da nekk à la mairie tu as yoo xam ne ne xarañ nañu am nañu efficacité ñi ngi door dara mais xëy na peut-être que les moyens ne suivent pas nga ñëw accompagner leen pour ñu def loo xamante ne ni ku ñëw ci sa dëkk naw loola yow en tant que maire mais boo demee ba nga xamante ne ni ñoom bu ñu xalaatee dara da nga koy xëccoo ak ñoom di leen leen gasal ay yoo xam ne ni c'est pour les éliminer pour ci institution boobu. Euh, wax nga ko depuis trois ans peut-être euh, ñu ngi lay topp ci mbir moomu saay boo bëggee dem rek euh, ñu xaw a ci sa tànk tuuti tey jii daam nee na moom du dertu ginnaaw benn yoon ci foire bi dina ko organiser promenade des Thiessois bi nga xamante ni foofu nga ko prévoir woon def ko fi mu ne nii révoqué nañ autorisation bi tey ji lan mooy plan d'action daal. mais dafa am loo xamante ne il faut ñu leeral ko. qu'est-ce qui a motivé la révocation. Mhm. ça c'est important. c'est une loolu moom il faut parce que ñetti nit wala ñeenti nit yi nga xamante ne ni parce que quand il parle au nom de l'INACOA mais il faut rétablir la vérité l'INACOA c'est une organisation patronale au même titre que le Conseil national du patronat au même titre que la CNES ce n'est pas pour rien quand le président voyage il voyage avec le président de l'INACOA donc su fekkente ne ni INACOA dafa cautionner un événement porté ko am ay nit yoo xam ne ne dañu nekk de l'autre côté di xeex nga leen di tuddee des membres de l'INACOA man là ça me problème d'accord c'est trois personnes ou quatre personnes yoo xamante ne ne xëy na am na ñu leen ngemb ki ko ki leen ngemb mooy monsieur le maire il faut le dire parce que dafa sauté ci occasion bi parce que tout simplement am na ñoo xam ne ne il se à la foire il faut mu ñëw dooleel leen pour éliminer la foire parce que il a envie d'organiser une foire internationale depuis trois ans mënu ko def à cause de moi nee na moom loolu la wax donc soo déggul dégloo le discours de ces gens-là qu'est-ce qu'ils disent bon qu'est-ce qui me à dire ça c'est important non léegi on va vers une foire internationale et puis bala fee kenn organiser dara da ngay waxtaan ak ñun comment ces gens la war a mun a défendre un projet qui ne les appartient pas un projet de la mairie je pense que ce sont les gens de la mairie ñoom ñoo ko war a défendre suñ ko défendre ça dire que am na koo xam ne ni moo nekk ci seen ginnaaw di leen dicter loolu la révocation maintenant ils nous ont déjà donné une autorisation nous on n'a pas demandé à être autorisés il faut que les ñu xam ni ñu woo dans une réunion où il le directeur de cabinet il y avait le le le, le secrétaire général monsieur Bakhoum il y avait euh, Denaba Sall il y avait le président régional de l'INACOA il y avait le vice-président du département il y avait le secrétaire général de l'INACOA et moi qui est l'organisateur qu'est-ce qu'ils nous ont problème bi mooy que nii ñun benn benn milieu rek la ñu am pour créer des recettes c'est la promenade et aujourd'hui su fekkente ne ni dañ fi bëgg organiser deux fois tout court dans l'année donc li ñu waroon a am ci promenade bi yëpp duñ ko am te actuellement nous avons des difficultés parce que les caisses de la mairie sont vides avec la Covid li ñu bëggoon mooy waxtaan ak yéen ba mën a am yeneen foire yoo xam ne ni dañ ko fi organiser mais ñoom ñoo ñu wax loolu. bi ñu waxee loolu qu'est-ce que le président de a répondu le président de l'INACOA a clairement répondu que xeex foire. te comme jàpp ngeen ni promenade bi fa ngeen mën a amee li ngeen am man du ma leen ko xañ bu fekkee ne ni da ngeen bëgg utiliser yeneen foire je tout à fait d'accord mais nañ ko organiser ba nga xamante ne ni du yi ba nga xamante ne ni tamit yeneen promoteurs yi nga xam ne ni tamit ñoo fi doon organiser du leen gaañ ñu ni ko defal ñu une proposition boo xam ne dinañ ci mënta sukkandiku on se doon rendez-vous mercredi mais à ma grande surprise crédit bi ñu ñëwee gisuñu kenn ci ñoom bi ko président wooyee moom le directeur de cabinet li mu ko wax daf ne ko non je suis à parce que dama accompagner ce qui n'est pas vrai parce que jour boobu muy wax ni il est à man gis naa ko ci biir ville bi donc kon am na loo xamante ne ni moom lañ doon moom lañ doon préparé alors ma ni leen mais comme demee na noonu et que man je devais organiser ma foire depuis 2019 j'avais déjà vendu mes stands des sponsors m'ont remis de l'argent est-ce que man du ma mën a organiser ma foire exceptionnellement en juin parce que man tout le monde sait que ni man sama foire en avril laa ko doon organiser ñu ne ma woy c'est bien possible la première date bi ñu ma joxoon c'est du premier euh, du premier mai jusqu'au quinze non du premier juin jusqu'au jusqu'au 15 mais entre temps ñu autoriser la foir de l'élevage mu waroon jeex le 25 mai xam nga entre le 25 et le premier y' a 5 jours te man xam naa une foire de l' élevage logistique bi gars yi déplacé ma ne leen cette foire là ne peut pas se tenir ci date bi parce que d' abord yi bu ñu paree le 25 avant ñu dindi matériel bi di nettoyer dinañ àgg le premier te man aussi il me faut au moins deux semaines parce que matériel bi may indi aussi c' pas n' importe matériel donc je préfère avancer la foire organiser ko du mais c' est exceptionnellement lañ ko doon organiser cela ne veut pas dire que ni ñun parce que boo bëggee mesurer sa bopp doo xaar ba événement jot ngay organiser sa capacité de mobilisation kenn du ko xam man j'ai toujours organisé en avril et j'ai toujours réussi mes événements donc kon xam nga ni ñoom ñoo ñu poussé à ça alors bi ñu demee ba ci biir l' parti partie ñëw gëm loolu leen ni tout le marché est derrière eux dig leen ay voté leen ci ay élections ñu ni nag léegi ko bon comme c'est Dame parce que ils ont que ni c'est Dame Sall tout court nañu def ay pexe pour révoquer ko ñoom ñoo coaché ces gens là li ñu doon def yëpp ñoom ñoo leen ko def loo créer du bruit yuuxu leen créer des scandales pour que ñu mën a sukkandiku ci seen coow yooyu pour nit foire bi su amee trouble à l'ordre public dafay am mais ku xam administration xam na ni c'est pas la mairie qui apprécie ay trouble à l'ordre public trouble à l'ordre public c'est le préfet mais aujourd'hui c'est le maire qui ki ki qui évoque ça donc il y a donc ñoom ñoo leen ko defloo bi parce que tout simplement seen foir international boobu pour mu am il faut éliminer dam léegi nag li ma bëgg a wax fii mooy que ni man je suis Thiessois man Thiès laa dëkk foire bi moo leen mag ñoom dégg dégg la laaj je veux dire bi may commencé di def foire ñoom il n'était pas encore maire te dañ fiy jóge foire bi di continuer di am parce que je toujours di nag bu jëm boucherie jaroon na utal ay béjjën je ne sais pas ndax olof boobu xam nañ ko wala déet et c'est pas le boo xamante ne ni bu ma deful foire rek mënu fa am foire yàlla sax daf ma dimbali. ci lii ñu def parce que daf ma won yeneen endroit ci yeneen localité yoo xamante ne ni fii ci biir Thiès j'ai plus d'espace li ma fa mën a def ci stand mooy ëpp stand ya ma mënoon yi ma doon def ci promenade bi spectacle de niveau ya fa mën a def mun ma ko woon def fii te dama leen di lancer un défi dinaa fa organiser un événement boo xam ne ni mooy gën a réussir événement bi ma doon def fii dinaa ci am résultat yu ëpp résultat yi ma doon am mais maintenant xam nga man du ma xeex kenn mësuma gis dans les médias mais su xeex jotee il faut y aller jusqu'au je crois que c'est c'est une bataille qui vient de commencer bataille bi mooy mooy que ni fii ba 2022 euh, du ma leen may dara saa yu ñu génnee dinaa génn événement bu ñu def ma def beneen contre événement à côté ñu xool man ak ñoom kan kan moo ëpp doole mais vérifier encore autre chose ñi nga xamante ne ñoom lañ yaakaar leen ñoom seen ginnaaw ñu mesurer man sama ginnaaw kan moo ëpp ginnaaw et d'ailleurs door nañ seen loxo ci ëkk xam nga nu dooree seen loxo ci ña nga xamante ne ni ñoo ñëwoon di leen dig ni boo leen fexee ba foire bi du am dina leen voter lan leen diggoon tey ci suba am na beneen responsable politique bu leen recevoir ñu dig ko la même chose et c' est des habitués man maa ngi ci biir ina quoi xam naa li ma lay wax élection bu jot ñu dig ko nit te bu élection jotee du la votel mënuñu la sax votel parce que ñetti nit topp leen dëkkuñu sax kees ñu ci bari beneen bi ci topp ils n'ont pas compris que ne ñun saa yu ñu leen joxee ay carte de l'INACOI des talons pour ñu jaay ko amul ci ñoom ku ci mën a jaay ñaari carte mais ku mënul jaay ñaari carte ci institution bi nga nekk mën nga apporter nit électorat bu ko gagné loolu la ville de Thiès ils se sont trompés lourdement léegi nag ki ñu xeeb mooy ñax bi nga xam ne ni mooy taal seen kër mooy man te nag gis nga la deuxième réponse c'est en février 2022 c'est pas maintenant. Mhm. Euh, très bien Dame euh, ba tey jii ci li nga xamante ni moom mooy foire bi ñu gis ne aussi am na innovation yu majeure yoo ni bëgg doon nga ko ci rek euh, yaa ngi wax ay partenaires sànq yaa ngi koy tudd ay partenaires internationaux yu yu ci war a ñëw nga dellusi si ak ñun ci li nga xamante ne moom mooy innovation yi nga fas yéene def ci foire bi. balaa ñuy ñëw ci innovation bi dafa am loo xam ne dama la ko bëgg wax nga seetlu ko. Mhm. soo ko seetloo mooy mooy dëggal lii ma lay wax. ils ont créé une situation. Mhm. pour yaakaaroon na ni xëy na foire bi dootul am foire bi moom day am mu ñu bëgg ko ak ñu bañ ko bëgg day am kooku moom je le dis ñu dégg ko ñoom sous peu de temps di nga gis ni convoqué nañu une réunion pour préparer la foire internationale parce que obstacle bi ñu amoon mooy la foire de Dame na ko ñëpp dégg ba bu ñu gisee loolu xam ni looloo tax ils ont essayé justement de supprimer cette foire mais bu ñu ko gisee aussi xam ni daf ko bëgg utiliser sous forme de campagne parce que il a prévu de le faire au son de son problème bi mooy loolu pour que au en deux mille vingt deux au moins mu mën a am lu mu teg ci nit ñi mais gis nga nit ñi li ngay teg ci seen loxo du ay événement ay événement defe naa ne ay promoteur privé ñoo ko war a organiser sa se passe un peu partout li mu war a teg ci suñu loxo ñun mooy ay réalisation parce que dëkk lañ ko dénk am lu ñu yaakaar ci moom am lu ñu bëgg ci moom na fexe ba li ñu yaakaar ci moom bëgg ko ci moom ñu gis ko ci moom au lieu que muy xëccoo at ay dansal at ay mademba ay foire at ay festival et d'ailleurs la le festival Kay Thiès je le dire c'est son projet il l'a piraté li may wax nii je suis parti le voir danaa tudd sax kilifa bi nga xam ne ne moom laa àndaloon bi may dem di ko seeti dama ci waxtaan ak le doyen Michael mbay chez lui sur le projet de l'organisation du festival Thiès sur scène laa ko tudde woon comme moom euh, c'est un homme de culture mu gis porte bi mu ne ma ça c'est très important mais bu ma sañoon nga ànd koog monsieur le maire. ma ne ko amul problème képp ku ma ci mën a àndal li important mooy nañ ko def parce que dëkk pour mu am développement il faut mu am ñaari animation animation économique mais aussi une animation culturelle. su fekkente ne ni dans l' animation économique am na nu ma ci àndal dans l' animation culturelle bu ma ci mënee ànd ak monsieur le maire man gisuma ci problème on est allé ko fekk kër Sele Thiam li wax dama je suis très précis bi ma ñëwee nous avons discuté. sur le concept ma wax ko lépp ak naka laa ko bëgg a réaliser et tout il m'a donné son accord bi ma joxee son accord ni ma woy la mairie vraiment est partant pour ça alors man ma dem di dunda yaakaar parce que xam nga nit ni nga koy gisee rek noonu da ngay jàpp ni lu mu la dëgg la parce que extérieur ak intérieur du benn extérieur bi jàpp waroon na ma ne lu mu la wax dëgg la mais intérieur bi war na ma ne lu mu la du dëgg alors quatre mois après à ma grande surprise ma jékki-jékki dégg ni monsieur le maire Talla Sylla réunir na tous les acteurs culturels pour préparer un festival qui s'appelle Kaay Thiès ma ne ah bon waaw mais c'est très bien mais au moins xanaa man mi nga xamante ne ni maa génne woon idée boobu mu associé ma musu ngeen gis festival Kaay Thiès ba gis ma fa il ne m'invite même pas il ne m'invite même pas donc man sama demande pourquoi haine bi nga xamante ne ni am na ko amoon mon égard mais lan moo ko motiver koo xamante ne ni bokk leen jëmukaay moi je ne suis pas un politicien je ne cherche pas à être un politicien bokkuma ci camp politique je suis dans le développement mais au mois ku ma mënul fekk dans la développement jàppale ma yaa xëy mais nga may ma sama jàmm mois je n'ai jamais demandé à ce que la mairie ma subvention excusez-moi au mois Diatara bi mu fi nekkee je n'ai jamais payé la promenade et chaque événement il me subvention à hauteur de un million mais man à chaque fois que ngeen gis ma may organiser à la promenade j'ai soit 3 millions ou 4 millions pour 15 jours ñu luyee ma ko cest les stands bi man yi nga xamante ne maay dem luyee ko xel ko mbâche indiwaat ko su ma ñëwee maire yi daf may luyewaat man say stand la fan ngeen mës a gis loolu mhm. nee nañu c'est une délibération du conseil municipal donc ils me font payer 3 millions donc par par pour les pour les 15 jours mhm. donc pour vous que ni voilà les personnes yi nga xamante ne ni ñoom ñoo ñuy diriger suñuy ut dañ naan askan bi lañ lañ fi bëgg a nekkal bu ñu fi nekkee dañuy dimbali askan bi mais bu ñu ñëwee même bu fekkente ne ni dimbaliwuñu askan bi mais askan bi bu ñu dee def ay effort pour dimbali seen bopp au moins même bu leen mënul accompagner mais ñu bàyyi leen ñu def seen liggéey mais je ne peux pas comprendre aujourd'hui et puis d'ailleurs je vais à voir toutes les villes du Sénégal ville boo ci dem am na foire est-ce que mës nga gis une seule fois une foire organisée par une mairie ou revendiquée par une mairie mësuloo ko gis Thiès rek nga koy gis je me demande pourquoi moom il a d'autres chats à am na leneen loo xam ne ne war na ko mën a def am na leneen loo xam ne ne moom la nit ñi di xaar ci moom mais pas ay événement ay ay organiser ay foire il y a combien de personnes yoo xam ne ne ils sont capables d'organiser un festival les acteurs culturels y a combien de personnes yoo xam ne ni mën nañu organiser à foire les acteurs sont là mais alors su fekkee ne ni nag loolu lépp defatu ko créer nag Kaay Thiès ba pare daal di képp ku fi amoon événement dama lay rey jël événement boobu dugal ko Kaay Thiès def ko sama événement pour que les gens ne parlent que de lui c'est ce ça ne va pas se comme ça mënul nekk et désormais je le dis tout de suite je ne suis pas pour une foire internationale bokkuma ci commerçants yi les commerçants de l'UNACOIS bokkuñu ci les autres promoteurs nag dinaa leen sensibiliser à refuser ce projet là parce que kenn du ñu imposer ni da ngay ni ñëw ànd ak man euh, par force nit ñi lay neex. da bàyyi nit ñi ñu xalaat bu fekkee ne ni nañu dañu war a ànd ak yow ñu ànd ak yow bu fekkee ne ni dañu jugé def seen i fi bopp nga xam ni c'est les privés qui ont le droit de def li ñuy def loolu mooy dëgg et je l'invite encore que duñ ko wax aussi. il est avec des gens yoo xamante ne ni bu li ñuy wax ak nit ñi li ñuy jëflanteeg nit ñi bu ñu ñëwee ci moom leneen lañ koy wax lu bokk ak loolu peut-être que d'autres occasions dinañu mën a permettre ma dugg ci loolu comme c'est pas à l'ordre jour mais je l'invite tout simplement à faire attention à ces gens yi nga xam ne ni ñu ngi déclarer ñoo ko gën a jege te en réalité kàmb lañ koy gasal nga ñëw ci li nga xamante ne moom mooy innovation yi par rapport ak mooy que ni je l'ai dit en prélude un partenaire très important boo xamante ne ni bu ñëwee c'est pour aider les Thiessois parce que Thiessois yi dañu soxla ku leen dimbali parce que aussi euh, bu ñu waxantee dëgg rek ils sont très fatigués te wax naa la léegi ni la développement dañ koy anticiper bu ñu demee ba xam ni lépp fii lay mujjee nañu fexe defaraat suñu toogaay defaraat suñu toogaay mooy accompagner les jeunes ba ñu mën a réaliser seen ay projet ba bu ëllëgee ku ñëw ce sont ces jeunes là ñoom ñoo lay employé loolu mooy dëgg donc nous sommes en partenariat avec euh, le FONGIP il y a une délégation de Singapour qui devait venir signer une convention avec l'INACOA parce que dañu am benn plateforme numérique boo xam ne ni ça regroupe pratiquement tous les euh, opérateurs économiques du monde et que l'INACOA dafa waroon intégrer plateforme boobu malheureusement donc ci foire bi lañ ko bëggoon a la euh, le 25. mais comme bon la foire maintenant la date là dafa changé et beneen endroit lay amee donc euh, on va essayer de voir naka la ñuy ba donc la signature de convention la et d' ailleurs euh, rabbil alamina parce que li ñuy wax ne xàcc boo gis wërsëgu borom la parce que le temps était très court pour ñu coordonner loolu lépp mais comme on a encore du temps ça va nous donc de faire venir ces gens là et convention ñu signé ko euh, ko bëgg xoolee luuma la mais luuma waru mën a gérer donc waru mën a gérer un marché comme luuma lay def kay nañ bàyyi luuma bi kenn du fa dem après les gens vont aller au marché te ñi koy wax demal ci biir marché bi nga xool fa ñuy exercer seen ay activités amuñu sax place ci voie publique bi lañ nekk di ko exercer ça c' un deuxièmement ñi ñëw ci foire bi c' est les gens yoo xam ne ne bu foire bi jub see un mois ou mois avant ñii la dem en Turquie ñii dem en Chine jëli ji ay conteneurs indi ko ñoom amu demal nga xool endroit yi ñu nekk nit balaa ngay xas nit da ngay xool d'abord sa bopp xool li ngay def xool fi ngay nekk par rapport ak kooku ngay xas ci lan la nekk ça c'est très important l'année dernière j'ai amené les des exposants à la foire de Marseille je n'ai pas demandé à participer à la foire de Marseille moi les gens de l'INACOA ñu ngi may dégg dañu dugg dans la net et permettez-moi de remercier les sites qui sont ici parce que xam naa ni ci sunu site yi pour ne pas faire de la publicité ci sunu site yi ko gisee ils sont passés par l'ambassade ils ont écrit une lettre à l'INACOI national daal nous avons vu ce que vous à Thiès et que la foire de Marseille pratiquement tous les pays africains yu ci bari dañuy participer mais le Sénégal n'a pas encore participé à cette foire donc on va prendre un pavillon boo xam ne ni dañ koy jox le Sénégal et particulièrement bépp produit boo xam ne dafay ñëw mu nekk un produit qui est fabriqué au Sénégal j'ai amené des exposants yoo xam ne ni produits locaux lañ fa yóbbu ñu ngi dégg li may wax amu ci kenn koo xam ne ni bi ngay ñibbi si delloo si nga produit nous avons tout vendu parce que objectif bi ma ci gënoon a poussé mooy que nous avons des femmes qui font de la transformation mais aujourd'hui naka ngay former nit mu am la savoir-faire nga xam ni kii elle a des difficultés parce des femmes mu wóor leen la boo ko joxee un financement li nga ko jàngal dina ci mën a sukkandiku pour yor boppam yor njabootam boo ko joxul financement boobu formation bi nga ko defal dootul am njëriñ donc il faut financer ces femmes à pouvoir donc produire mais il faut créer un marché qui permet à ces gens-là de commercialiser c'est important man mon objectif était de faire en sorte que su ñu demee à avec les produits yu ñu fa yóbbu au moins que ces grandes surfaces yi nga xam ne ni ñu ngi visiter ce pavillon là bu ñu gisee ces produits là ils vont passer commande à nos femmes nga xam ne ni dootuñu nekk di defar ay ñetti butéelu sirop ñeenti butéelu sirop ay quelques mbuusu araw mais ce sera une commande boo xam ne ni ay conteneurs ñoom ñooy jóge fii di dem en Europe di dugg dans ces grandes surfaces là donc la politique était donc bu fekkee ne ñoom xamuñu li may def nañ ma bàyyi ma def li may def parce que maa ngi ci beneen dimension dimension bi ma nekk ak dimension bi ñu nekk du benn ci dimension politique la nekk at nax nit ñi man ci dimension dëgg laa nekk at liggéey pour askan bi jëriñoo. Mhm. Euh, pour terminer est daam nekk na ci logique gu s'asseoir autour d'une table yow ak revendeurs yi ak maire bi nga xamante ni boobu ba tey ñoom ñu ngi xëcc say tànk ñoom bëgg nañ euh, organiser foire internationale yow yaa ngi ak sa foire logique yow daam yaa ngi ci logique gu toog si autour d'une table ngeen réfléchir ci naka ngeen mën trouver euh, euh, la réponse est très courte xalaatuma ko sax mhm. toog ak la mairie toogati ak la mairie di wax waxu foire mhm. c'est terminé kooku moom il faut pas kenn di ko xaar la mairie ville laa wax mhm. toogateeg ñoom di wax waxu foire ci Dame Sall kooku mënatul am parce que li ñu jàpp moo tax parce non seulement c'est une deuxièmement li ñu def ci seen xel loo xam ne ni ñëpp a ko bokk moom dénk la ko muy la promenade des Thiessois nga am sañ-sañu jël ko di ko xeexee damsal wala su ma ko joxul damsal li mu doon def dootu fi am. mais pourquoi pourquoi pourquoi haine boobu ci ci personne damsal jaar wala. non ko kooku ñoom ñoo ko mën a expliquer mais man li ma xalaat. Mhm. mooy que ni c'est la foire internationale. parce que tant que Dame Sall n'est pas d'accord tant que Dame Sall est en train d'organiser la foire économique et commerciale ça gêne la foire mais je ne vois mais boo demee à Dakar à part la foire internationale il y a est-ce que dafa arrêter la foire internationale donc si Dame Sall veut organiser sa foire parce que Dame Sall est en partenariat avec l'INACOA mais laissez Dame Sall organiser sa foire et aller de l'autre côté montrer à Dame Sall que même si vous ne participez pas on peut faire mieux que mais pourquoi coûte que éliminer Dame mais pourquoi mais loolu mooy wax ji je veux dire que ni projet boobu yëpp c'est le maire qui est en tête le maire Talla il n'a qu'à me répondre après pour me dire que c'est pas lui je vais lui amener des preuves qui montrent que c'est lui Euh, sûrement dina apporter réponse ci li nga xamante moom mooy sa interpellation tey jii sa dernier mot à l'endroit de ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, ñi lay seetaan ak ñi nga xamante ne ñoom nga bokkal UNACOIS bi ak euh, événement bi nga xamante ne moom mooy sa foire boobu nga ni fas yéene nga ko organiser après la tabaski. bon da nga ni sama foire c'est pas ma foire c'est la foire des Thiessois ça c'est important parce que man foire bi aw ma fa stand du ma nga bi muy <laughs> bi muy opposé wu ci foire bi. dafa foogoon ni peut-être la koy def mais dafa foogoon ni aussi mi ngi neexal benn catégorie de personnes fekk ñi mu frustré moo ëpp téeméeri junni yoon ña yaakaar ni ñoom la koy defal parce que ce sont il a frustré ne ni seen doole demewul noonu ñu ñëw ci foire bi li problème est-ce que mi ngi mesuré le chauffeur de taxi bi nga xamante ne ni pendant la foire ça c'est des impacts économiques malheureusement c'est pas des économistes c'est des soi-disant philosophes qui ne savent pas étudier ces choses-là mesure na impact économique yooyu jaaykat yi nga xam ne ñoo ci doon jaay hôtel yi nga xamante ne ni dañ doon nit ñi dañ fa doon dëkk kër yi nga xamante ne dañ ko doon loué les stations yi nga xamante ne ñi nga doon jaay essence nit yi nga xamante ne ni ñi nga doon ñëw di faj seen ay soxla foofu su fekkoon ne ni réellement ville bi moo ko intéressé woon il veut dafa bëgg a jëlee la ville de Thiès ci niveau bi yóbbu ko ci beneen niveau doo woon opposé ne ni dafa amal Thiès waaye njëriñ ça la première chose la deuxième chose dama koy jox yóbbu à de la jeunesse thiessoise qu'il sa prépare xam ne lii nga xamante ne ni moom lañ ma teg parce que tooñ bu mag la parce que am na leneen loo xamante ne ni moom lañ ci jublu woon parce que j'ai tenu une réunion ak ñoom avec toutes les factures parce que bi may waxante ak ñoom j'avais déjà investi 60 millions 2STV j'avais déjà payé Khelcom Bass j'avais déjà payé beaucoup de choses je l'avais payé les factures ma wan leen ko man leen voilà pourquoi je suis dans l'impossibilité de ne pas organiser la foire ci période bi mais xam nga ñoom lan moo nekkoon seen projet ñoom dañu defoon ci seen xel ni si la foire ne s'organise pas en cette période ñi nga xamante ne ni il m'avait donné de l'argent dañ may attaqué les partenaires dañ may attaqué ma nekk ci diggante gendarmerie tribunal ba sax voire même aller à dixième ñu noppalu nag benn yoon mais demaguma dixième te deewaguma je suis léegi nag les jeunes nañu xam ne li ma dal nii kenn ku nekk dina la dal ëllëg mais bu la dalee nga xam ne épreuve la parce que yàlla sunu borom moo mayewul dafay jaay te lépp lu waay bëgg bala la ko yàlla jox dina la jaarale ci ay épreuve mais épreuve yooyu nañ fexe ba mu nekk enseignement ci ñoom enseignement boobu moo leen di permettre ñu solide ba mën a nekk ay leader ba lépp loo xam ne ni xëy na dal na seen kaw rek ñu mën koo gérer ba du nekk gàllankoor ci seen ay projet voilà ñu koy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon euh, Dame Sall nekk initiateur euh, foire économique euh, régional bu Thiès di ko rek jaajëfal ci li nga xamante ni moom la répondre suñu invitation jaajëfal leen itam yéen mbokk internet yu Thiès Info yi nekkoon di ñu seetaan dig daje bi beneen yoon lay doon incha allah jërë ngeen jëf.